les aider à dénoncer déglu leen koy défendre ba lu ma ci góobe gar ko waaw man maa ko wax daw ma dikkuma sama kanam ngi nii Binta Fall laa tudd waaw ragaluma ci dara yàgg naa wax avant di def ay statut Facebook am na ñu ma ci mere am na ñoo xam ne mere nañ ma si mais man je m'en fous parce que loolu laa gëm jigéen dañ koy défendre aji aji saar lii ko dal nii dal na ma dal na ma à l'âge de douze ou treize ans dal na ma man mii mais mënuma ko wax fenn Adji dafa jox ñu bari doole pour lii kuñ ko def tey nga génn taxaw ne diw def na ma nàngam dañ ko daan nëbb di ko nëpp nëppal man mii di wax dal na ma waaw je suis Adji Sarr tey je suis ëllëg waaw su bëggee xajutee Sénégal na ñëw fii sama kër ma héberger ko fii ci Allemagne waaw mu ñëw toog fii jàpp ñàmburam waaw man maa ko wax maa koy ànd ak moom tey ànd ak moom ëllëg waaw je suis Adji ba lu ma ci góobe gar ko waaw ñun nag jigéen ñi dafa am jigéen ñu nga xam ne dañoo naa fekk bëgguñu seen moroomu jigéen lu tax jigéen ñun duñu jàppalante suñu biir lan moo tax duñu jàppalante suñu biir ñun jigéen ñi ah yàkkamti nañ ñu ne jigéen des na dara ñu jóg ne dëgg la moo ko def caga waaw bu fa demuloon bu fa lii bu fa laa dafa dem pour daan doole xëy na mënul def beneen liggéey xëy na ba mu fay dem sax waxuñ ko ne loolu la fay def mu dem ba dugg ne ah comme que lii mën naa ci am sama xaalis xaaral ah, ma dem def ko ah man maa ngi nii mbindaanu naa lu nekk liggéey bu nekk ba may mbindaanu façon góor bu ne bëgg na maa siif waaw. am na ñu am na ku réussir siif ma booba maa ngi nekk xale bu ndaw aw ma sax quinze ans waaw tey na ngeen bëgg doomi jàmbur yi ngeen naan du dëgg dugg na fii di ko di ko kii Sénégal dañoo bëgg noot jigéen ñi duñ ko fi nangu ngeen ñuy noot kenn du ko fi nangu tey kenn ko fi nangu ëllëg waaw na ngeen wax ba suba même su fekkee dañoo taxaw ne du dëgg sax man sama yoon nekku si je suis Adji lu ma ci góobe gar ko waaw wasalaam maa ngi yemagum fii di leen nuyu di leen gërëm di leen sant il est ñun jigéen ñi nañu jóg taxaw jàppalante suñu biir ba kenn duñu mën a defati yii ñu ñuy def dafa doy sonnu nañu waaw maa ngi jéggalu bu dee wax ji dafa dëgër wasalaam jërëjeen jëf kontaan naa si lii voilà donc euh, di wax ni que dans euh, man li may dégg euh, des fois daf may daf may xaw a dépassé parce que tu vois je savais pas que y avait autant de femmes victimes de viol xaw ma woon ni qu'il y avait autant de Sénégalais victimes de viol oui ma sœur Aïda yaa ngi ci direct bi ñëpp a ngi lay déglu waaw ñëpp lay déglu ma sœur maa ngi lay fay. kontaan naa bu baax ci direct bi maa ngi déglu. la parole est aux victimes donc yaa ngi noonu sister. waaw ah. wallaay Adji ñoo ngi soutenir Adji Sarr tey ba suba ba ginnaaw suba ñoo ngi ci ba à la fin du monde fu mu yem rek neex. Mm-hmm, c'est léegi nag ci boppam. Mm-hmm. Sonko nañ taxaw jël responsabilité mu wax ne nii. Mm-hmm. defuma on toogoon naa ko wala toogoo waa moom. li ay saraf na waat nañu waat ñun président bu mel ni dañ ko ñaanul yàlla sax mhm. ñun même bu toogoon wax ne waa du du man sax ñun xamut Sonko ci boppam ñaanuñu yàlla mu ñuy jiite mhm. waaw man ci biir ak ay xaleem laa ne man kii fi mu jëm baaxul bu ñuy jullee nañuy ñaan kuy ñaan chrétien musulman bi dañuy ñaan yàlla bu mu jiite ci fii Sénégal ànd mm-hmm. ak ay ay xam ne amoo ci responsabilité ñuy saaga nit ñi mm-hmm. wax lu bon mm-hmm. def nit ñi lu bon yow nga toog ah ne yow bëgg réew mm. ah? ci la ah ñu bëri jaay mu dafa ñëw rek favoriser xale yi yàq xale yi laala ne indil seen loo xam ci biir xale mhm. euh, yow tu la seule de ce live là ma delloo la ci sa asile yow ma ni comme yaa nga jëm yow ma ma delloo la asile bi parce que dama libéré woon benn femme benn dof bu tudd Anta Fall mais dafa xaw a xaabaabal xama bloqué ndeyam. go ahead mhm. go ahead sister maa ngi jégalu dafa am ku ma doon bloqué. ku nekk di di saaga dafa nekkoon di saaga mais daal ñun mhm. ñaan yàlla daal mhm. yàlla indil ñu gën Sénégal te man loolu am na am naa ci yaakaar incha allah dina ko def nag na def liggéeyam Sénégal sister mon frère ni tegaane sunkoon moom amul pour la ragal kenn ku ne ragal kenn ku ne ragal a wax kenn ku a wax mhm. kenn ku ne ragal moo mhm. tax yéen ñi jël seen responsabilité kaw di mën a laaj dëkk bi ba ñëpp di leen fekk si mhm. yéen dañ leen di sant di leen gërëm mhm. en tout cas ñu ngi ñëpp ñi ñëw di ñu jàppale toutes les avocates toutes tous les avocats tous les activistes panafricanistes yen ñëpp ñu ngi leen di gërëm leen sant di leen ne ñu welcome yéen ñëpp c'est votre combat jaajëf koy leen bu baax a baax a leen nañ merci Sénégal kenn moomu ko lu baax rek ko moom def lu baax a ko moom. dinañu internationaliser euh, dinañu internationaliser combat bi euh, dinañ ko duñ jël mm. suñu relais dans les pays Côte d'Ivoire mm-hmm. Bénin ak euh, ñeneen ñi nga xam ne fii au niveau international France ak yooyu am nañ fay réseau également. donc voilà. voilà tournel caméra bi Ivo. voilà. ñun noonu la ñu wootee taxaw Adji Sarr. gaynde ba xam ne moom dara. ñu ko. merci beaucoup ñu woote gëmu ko. effectivement dafa leer. yow booy woote ni da ngay néew di doole. soxna Aida. booy woote ni néew di doole moo tax nga jóg. nañu waxante dëgg. bu dee da nga woote ni néew di doole yi tax nga jóg. boo sekkee néew di doole. ay mm-hmm. nit taxaw di ko saaga di nga def ah. appel ne leen bàyyi leen xale ngeen di saaga. Ah. ñun ba tey ba jigéen la niw di doole la ñoom ñoo tax ñu jóg même bu dee dafa juum man nii mu mu mu maa la ne maa leen wax bàyyi leen ki ngeen di saaga bàyyi leen ki ngeen di togoxal parce que loolu du suñu rôle mais defu ko ba tey ji ñaangul ma dem justice ba tey ji Idrissa Seck bi mu li mu wax rek daw na yaram man bi ma Ablaye Wade defee li may def jiñ ma def dama ne toog leen su ko neexoon mu woo di leen combattre te loolu la ñu def ñu Sénégal. dëgg la mais dafa dem jël responsable gëm yàlla ba toog ba yàlla génne ko tey may ko ndam. Mhm. kon moom ci ma ko. waaw na jël responsabilité jël responsabilité am la ko woon. merci beaucoup kon tey waroon na toog tey ne eh kii kat man ak man ak moom la nañu de ci mhm. lu ma ci am ma jël mais génn leen yàq alal jàpp tey ñun ñaa ngi nii liggéeyatuñu ak boobu su ko jàppee rek wallaahi mu xam. ni am seen emploi ah. Auchan war a liggéey. ah Auchan yi yëpp bu yàqale weeru koor bi nga xam ne Auchan yi ci nit ñi lañ daan dem. ñun Auchan yi ci lañ daan dem ñuy jënd parce que am na yenn yoo xam mënoo ko jënd ci marché. parce que c'est moins cher Auchan yi c'était moins cher. c'est moins cher. daaw ci koor gi yëpp vraiment léegi laa koy waxtaan ak suma benn euh, beau-frère. ma ni ko xool daaw ci euh, Auchan bi lañ daan dem di jënd li ñuy lekk yëpp fromage léegi nag mënatuñ ko am fii nit boo nga dem te ñun ñoo ngi dëkk baale bi ñun ñi dëkk ci baale bi ñoo gën a sonn non ah. lii daal lii vraiment di indi bii problème ah ba pare nag mu wër na di naan nag day def yooyu muy def di dem ci kër sëriñ di dem ci kër lii dem ci baalu ji kii. daa foog ne moo gën a muus nag <laughs> ah, am na sama benn am na benn sénégalais bu ma doon waxtaan am na ku ma doon waxtaanal sànq mu ne ma man de li ma gën a métti Sonko yemul ci violé ah. Adji Sarr mais ñun sénégalais yi la lañu lay violé fi mu ne nii. mu ne Sénégalais la nekk di violé fu ne mu ngi koy wër di ñu violé suñu xel yi lay fi mu toll laaxi loolu de dama wax sax dama xam ne ñoom la jëj woon wule woo mm-hmm. politiciens yi ñu léegi gëmoon boppam mu dem ci ñoom moom xam na léegi moom li mu def xam na ko moom egg bu ñu fi egg mais xam na li mu def moom xam na ko waaw merci ma sœur du yàgg ak léegi di nga xam ne Sonko mais y a quelque chose. nekkatul ah? sax mais xam na ni moom lii nii mënut mënuñ ci jógee mu naan day nekk biir kan mooy xool. président boo xam ne xalaat nii. Mm. duñ ko yàlla du ko seetaan ñi duñ ko seetaan Sénégalais dinañ yeewu fas benn benn gaaw ñoo kii nii noonu. mais dinañ xam léegi far bi ñi xam. merci beaucoup merci am na ñuy xam ñu ngi lay bu baax a baax a baax a baax di la ñaanal jàmm ak salaam. merci ma sœur d' accord ñu continuer ñu ci combat bi. merci le combat continue donc euh, mu doon su sœur Thioro mu ngi ci euh, panel bi. Mm-hmm. mu ngi suñu panel. Euh, donc mu ngi ci collectif bi nga xam ni mooy xeex les droits de Adji Sarr mm-hmm. mais bu leen fàtte ni au delà les droits de toutes les femmes victimes de violence et les femmes et les jeunes filles ak les jeunes garçons parce que am na xale góor yoo xam ne aussi dañuy am problème yi. Donc, on est là pour tous ceux qui sont victimes et pour Adissa, particulièrement en ces moments précis. Mm-hmm. Et nous sommes de tout cœur, en tant que mère, en tant que sœur, en tant que euh, de Kondo, en tant que Sénégalaise. Nous n'allons pas démissionner, nous n'allons pas nous cacher, nous n'allons courir et nous terrer dans les trous comme euh, comme l'ont fait certes, certes, les, la plupart des organisations qui étaient censées défendre le droit des femmes. Euh, donc, en attendant,